يزرهم مخلدون مناهم متوى بلا سرابي والكل بالبزر زنخرابي رجاؤهم وعقوا وملكوا في أبد ما لا يراء ملك بناؤهم يعلو وليس ينزفر أما مبارز علي فمنزبر بالله آمن وأسلم معاه ولتحسنه لوجه باح عما هو الإله وهو الرحمن وهو رحيم وله الأزمان مني له انف وحمد وسكون ذا حكمتي للمصطفى عبد السكون فارقت جملة من المباحين لمن كفى كفاني زمن مباحين أذكره وقاد لي أبدالا كما كفاني قرب والجدالا سبحانه وهو الكريم والخميد والكل من لم يهوني فهو كميد تسليم من لي لا يوجه الضرر على الذي به كفاني الغرر جزاء من جل عن المثال لي خادم غابا من أمثالي الحمد لله بلا انتهاء على ابن عبد الله في البهاء براعة المختار ليس تقفى إلا على من بنكام يخفى للمصطفى وجهت ما قد سرفا من خيرنا إليس وهو انصرفا قدمت باطلا بحق فزحا ولي إليك فسعيدا ملت ربي مالكي كل يدي علي لوكا ملي ونيتي ردت بالله وبرسولي من قالوا الحق ونعت سولي asalaamaaleykum wa barakaatu maa ngi nuyu mbokk yi di ziar ñëpp dëgg yàlla di moom ku nekk xam na ne Cheikh Idrissa Diop moom nit ku baax la woon ko yàlla teral wax dëgg yàlla muy koo xamante bi wax dëgg yàlla lu baax rek la xam daan ko def waaw bëggoon lu baax moo tax bisam bi sonnoon ci alxuraan lor bëggoon ko fonk xasida yi doon taalibe moo tax root yàlla bisam bi lépp lu ñu man si lu baax rek dinañ si góor góor lu taxaw si taxawul ko ginnaawam ba mu rafet ni mu ko bëggee woon incha allah bis bi nag incha allah fas yéene nañu yendoo xasida yi fanaan ne ko ak jàng xaadir yi wax dëgg yàlla jàngkat yu bëri dinañ teew incha allah waaw guddi géet jàng tabala am na ko mel ne Moustapha Mbaye dina fi jàng waaw bëccëg géet na Serigne Ablaye Seck ak borom jàngkati xasida yu bëri dinañ teew incha allah. waaw ñu ngi rafetlu wax dëgg yàlla mbokk yi nga xam ñëpp ñoom ñëpp teew nañ ci bis bi defi seen wërsëg ak seen alal ñu ngi ñaan yàlla ba bu dee dellu si incha allah ñoom ñëpp suñu borom yokk leen ba nu yëg ko incha allah jox leen loo xamante ni bii xam nañ dañ xam ne liggéeyal nañ ko nit ku baax waaw nit ku baax nag saa yoo ko liggéeyal boo paree da nga xamante ne liggéeyal nga nit ku baax wax dëgg yàlla maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp waaw di ñaanal ñëpp rek ñu yàlla yokk seen teraanga boole ko lu ñu bëgg a def ci bés bi ñu def ko incha allah jërëjëf wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu rabbi bima yasrahul adhan qad fajaa bijaahi afdali man lillahi qad lajaa